juste question euh, jàng nga am nga xam-xam am nga compétence euh, développe mettre nga en œuvre PSE dans ta localité euh, occuper nga des responsabilités dans le privé mais pourquoi ça n'a jamais charmé Macky ba mu teg la ba mu def le ministre dans le gouvernement euh, mu jox la portefeuille wala sax mu def le premier ministre pourquoi ça n'a toutes ces qualités là n'ont jamais euh, attiré Macky Alors ça, il faut le demander au président. Moi-même, je comprends pas non plus. Mais, mmh. pour moi... Euh, vous, ne le, vous, vous, ne le, comprenez pas Non, non, je n'ai pas compris pourquoi euh, sur, sur 12 ans, effectivement, euh, j'avais compris au départ que, que je, je, quand je venais d'arriver, j'ai passé beaucoup ah, de temps, mmh. voilà, vous me donnez sur le Sénégal, j'ai passé beaucoup de temps à voyager, à comprendre à, et à développer surtout. Effectivement, pendant la première période, je sama temps temps bi ma doon am sama le fait mu bañoon nekk dans le gouvernement mais dans le cabinet alors j'ai beaucoup voyagé pour faire ce qu'on appelle le marketing territorial j'ai beaucoup voyagé pour des missions même de l'État yéeg nga ne maa demoon Texas jëlee le bateau Mercy Ship par exemple le bateau hôpital n'est-ce pas donc j'ai pas perdu de temps que man je ne sais pas perdre du malheureusement bi ma demee def ce temps là di ma def mooy jéem a wuti ay euh, ay ay ay partenaires noonu laa def toutes ces usines Euh, nga gis à Sandiara je suis allé personnellement au Maroc dem jëli leen dem au Japon dem jëli leen dem aussi euh, en France euh, en Italie dans tous les pays pratiquement yi fa nekk tey sur les 32 usines officiellement enregistrées yu yooyu yu bëri ñu ñoo dem jëli et ça c'est important ça ça veut dire que au lieu ngay toog di toog ndax nommé dañu wala nommé wuñu leen moi j'ai pas le temps parce que ñun ay chercheurs lañu ay ingénieurs lañu da ngay temps bi comme c'est 24 heures foo surtout pas le perdre et tu as vu que tey xëy na loolu moo ëppoon sa utilité nekk peut-être euh, ministre dans un gouvernement. mais mais mais vous auriez aimé quand même que Sall euh, valoriser sa parcours euh, yow mënoon nga nekk tey valablement ministre de de de de l'industrie mënoon nga nekk ministre de l'agriculture mais Macky Sall n'y je ne sais si, si, si à ça ou pas. je pense qu'il a peut-être qu'il a même pensé à ça. En tout je l'ai jamais demandé. Parce que je demande pas. En général, Nestlé, man, le parce meilleur. quand même, vous comprimez, euh, vous compressez dans, dans, dans, dans, un poste de ministre conseiller, vous de produire des documents qu'il ne lit même pas, il ne vous reçoit. Parce que je, dès que le ministre conseiller, nous sommes non, non, mais ça, ça, je ne peux pas dire ça. Man, mm. Moi, pas euh, président saa yu ma ko bëggee gis vraiment gis ko on a des on a eu des excellentes relations vraiment de confiance je ne peux pas dire ça par contre euh, euh comme j'ai dit su fekkee ne tu n'es pas occupé dans un conseil de ministre wala dans un ministère en fait c'est yow yaa war a créer sa job description nit su fekkee ne dañ lay dañ jël pour nga def benn travail la ce travail là da ngay fexe ba comme je suis maire euh, en même temps de Sandiara Donc j'ai de une municipalité à gérer. Je suis politique, je suis élu au niveau du conseil départemental de Mbour. Je suis euh, également euh, euh, ministre conseil. Donc vous voyez, euh, le travail bi nga war a def pour loolu da koy def le travail bi nga pour préparer des documents da nga koy def soo leen war a dem tourner avec le président ngeen def ko mais temps bi nga xam ne yaa ngi ko waroon nekk dans des conseils de ministres mais tu prends l'avion et tu vas chercher des sommes de 65 milliards c'est